bismillah nemmeeku nan la yow mbokk mi ni topp ci sunu càllale gii di xalam ci biir càllale yi nag bokkoon na ci liis leen na mën a yaatal mbooleem lu aj ci xeeti xam-xam yi nga xam ne dina leen amal njariñ te ñu bindaloon leen ko ci làkku français tey jii nag dañ leen fi bëgg indil benn boo xam ne nekk na lu am solo te ñu bari ci doomi réew mi réere ko te daa waroon a nekk lu ñëpp xam maanaam képp kuy doomu réew mi waral na koo xam waaye waru ko umpale ndax loolu dana tax mu mën a mucc ci yenn ci njuumte yi nga xam ne mën na koo dal ba yoon di ko taxawloo maanaam bañu koy arrêté di ko yóbbu ci kanam yoon ak yi mel mu nekk ponk yi nga xam ne moo ŋànk sunu réew mii di Sénégal li ko dale ci njiitu réew ngoom lan gi muy assemblée nationale naka noonu itam ëttu attekaay yi ak ëttuk attekaay yi naka noonu itam jàmbur yi mu ñu tuddi député yi luy seen liggéey nees leen di tànne naka noonu ñu tuddi jëwriñ yi te muy ministre yi ak yi ci aju réew mi itam ci jëmmam muy sunu réew mi di Sénégal ay jagleelam ci wàllu njuux wàllu masé muy plan naka noonu ay jagleelam ci wàllum koom ak yi ni mel maanaam mboolem les di tuddi ay càmpte te mooy li ñu tuddee ay institution nekk ay biir yoo xam ni yées waroon di leeral la mboolem askan wi ba ñu xam ko xam gu wér waaye ngir ñu mën ko xam-xam gu wér ci seen làkk wii di wolof lees leen ko waroon a amal defal leen ko ci ñoom ñëpp ñu mën koo nànd nànd gu wér loolu tax na defal na leen ci ab téere xëy na yàggatul balaa jamono dees na leen ko gaaral lépp di ay wolof leer nañ waaye loolu téerewut dañ leen ci indil fii benn tënk boo xam ni di ngeen ci mën a jàppandi ba kere téere ba di yembu ngeen mën a xam mboolem mbir yi nga xam ni seen réew mi moo ko ŋànk ku bëgg nekk lii fan lay jaar ak wet yi ngeen def ñu koy tudde voté ban njariñ lay amal réew mi ak lu mu ci mën a jur xaalis biñ leen di jox wala biñ leen di xañ bi ñuy jële ci yéen ak xaalis bi nga xam ni woyu politique ñi daañ ko jël di ko sànni askan wi askan wi jàpp ni ñoo leen ko may ak li njiitu réew di jox nit ñi ñu jàpp ni njiitu réew daa nekk boroom alal joo xam ne daay jël alalam di sànni wala muy joxe ak alal ji ñuy jël di ko pasar pasare ndax noonu la war a demee ak lii génne ci réew mi ndax ñoo ko moom fu nu ko war a jàllale kon yooyu yëpp fii lay leereen dem sob na sunu borom boole ñu toppee ci sunu jotaay bii sunu càllale gi di xalam nu jotaayu gi yéen indil leen ci ak yaatal kon balaa dara dañu leen di aajar seen réew mii ñu dëkk muy Sénégal maanaam dañ leen di présenté seen dëkk bii di senegal ngeen xam ko ba noppi. senegal di réew moo xam ne moo ngi sampe ci Afrique sowu jant di menn réew ci réew yi kembar gi di Afrique maanaam continent africain. lamboo mbiiraay gu ay suuf wër maanaam ay réew ci genn wàll ak geneen wàll goo xam ne ndox a ko wër te mooy géej ca wàllu sawu ga ba la wër niiru tun muy presqu'île bu Cap-Vert te muy làcc wun na tax bi yaatuwaayu Sénégal nag mu ngi tollu ci téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-benn junni juróom-ñaar téeméer fukk ak ñaar ci ay kilomètres ñeente maanaam junnee ñeente muy kilomètre carré maanaam cent quatre-vingt-seize mille sept cent douze loolu mooy yaatuwaayu Sénégal buñ ko doon natt mu ngi digaloo ak réewu Mauritanie ci wàllu bëj gànnaar maanaam wàllu càmmooñ wàllu ndeyjoor mu digaloo ak réewum Guinée Bissau ak Guinée Conakry wàllu penk mu digaloo ak réewum Mali waaye wàllu sowu bi kon moo ngi digaloo ak mbambalaanu Atlantique. Gàmbi nag moom moo ngi sampe ci biir Sénégal ci guddaayub luy tolloo fukki junni ak ñetti téeméeri kilomètres muy dix mille trois cent ci biir mbiiraay gu Sénégal. Sénégal lamboo njuuxul Sahel. di taw luy tolloo ak ñetti weer jàpp ñeent te muy diggante juin ba septembre ñaari dex yi nga xam ni ñoo ko wër di ëpp solo mooy dexuk senegal ak li ñu tudde dexuk Gambie ñoo ngay balle ci balluwaayu Fuuta Jaloon ci Guinée fere réewum Sénégal des na ko natt fii ne ci fukki million ak juróom benn mu nekk fere yoo xam ni dañuy wax ni waxambaane yi ñoo ci ëpp lamboo ay xeet yu bari te wuute ak i waaso diine ji jëfandikoo nag mooy diiney lislaam muy àgg ci juróom-ñeent fukk ci téeméer yu tegalu su lëf naka noonu diiney chrétien muy teg juróom ci téeméer ci ferey réew mi naka noonu la ca des di li toggale yeneen xeeti diine yi Sénégal làmboo fukki dog ak ñeent maanaam fukki région ak ñeent ñeent fukk ak ñeenti gox muy département téeméer ak fanweer ñett ci arrondissement téeméer ak fukk juróom ci ay mbokkaay muy commune région bu ne itam dana amee benn kilifa ku nekkal càmm gi ñu di ko tuddee gouverneur ñu di ko itam gouverneur bu bawoo ci càmputeeg njëwriñu biir réew muy ministre de l'intérieur ci Sénégal itam région bu ne mu ngi séddalikoo ci ñetti gox muy ñetti département département bu ci nekk itam dana am benn calaw muy benn préfet boo xam ni moo fay teewal càmm gi te muy l'état noonu lay amee itam dee calaaw ñu di ko tuddee sous préfet boo xam ni mooy nekk ca gox goxaat ba muy ca goxaat ba muy li ñu tuddee arrondissement Sénégal nag làmboo fukki région ak ñeent ci fukki région yooyu mu làmboo ak ñeent bi ci jëkk mooy dakaar moom moo làmboo ñeenti gox yi te muy Dakar Géejawaay Pikine ak Rufisque mooy ñaareel bi lamboo na ñetti département mu ñetti gox te muy Diourbel Bambey Mbacké Fatick di ñetteel bi lamboo na Fatick Foundiougne Gossas ak Guinguinéo Kaolack di ñeenteel bi lamboo na Kaolack Koungheul Nioro di Rip Saint-Louis muy juróomeel bi lamboo na Saint-Louis Dagana ak Podor Louga di juróom benneel lamboo na Louga Linguère Kébémer maatam di juróom-ñaareelu làmboona Matam Kanel ak Ranérou Ranérou Thiès di juróom-ñetteel bi làmboona Thiès mbuur ak Tivaouane Ziguinchor di juróom-ñeenteel bi làmboona Ziguinchor Ziguinchor Bignona ak Oussouye fukkeel bi di kafrin làmboona Kaffrine Birkelane ak Malem Hodar Kédougou di fukkeel bi ak benn làmboona Kédougou Salemata Koupantoum fukkeel bi ak ñeent di Sédhiou làmboo na Sédhiou Bounkiling ak Goudomp ci Sénégal nag li xeet yi di wuute wuute ak li diine yi di wuute wuute terewut ñoo ngi sàmmonte ku nekk ak la boroom jën doon di ko fonkal itam la mu am mbaa mu gëm xeet yi fi nekk bari na ba jéggi dayoo bokk na ci pël wolof séeréer tukulóor soninke maninke diine yi di jullit nasaraan muy chrétien naka noonu bois sacré ak yeneen yi ni mel waaye terewut ñoom ñëpp amante nañ jàmm di demalante di dikkalante ak bokkante ay xew-xew suñu sukkandikoo ci suñuy càmputeef muy suñ ay institution mbooleem doomi réew mi ak gox bu waaye mën a nekk gox-goxaat bu waay mën a nekk kiiw mu waay mën a nekk naka noonu mbokkaay gu waay mën a nekk muy commune ñoom ñëpp ñoo bokk yenn àq ak yenn yelleef Sénégal nag lamboo na ay xamtukaay ni ki nga xam ne noonu la amee ci yeneen réew yëpp te bokk na ci xamtukaay yooyee muy liis di wax raay wi ñu di ko wax drapeau drapeau nag mooy màndarga mi nga xam ni mooy màndargaal réew mu am ak mbiiraay am li ñuy tudde am péex muy libère Sénégal nag awraayam raayam lamboo na ñetti wiir ko yu samp yu jokk jolante ci digg ba lamboo na benn biddiw bu wert wert bi nag muy nëtëx bi wérgowu nëtëx wi ñu ni day màndargaal wérgowu nëtëxaayu àll bi ak naataangeem noonu lañ ci delloo dolli ci meneen maanaa ñuy wax ni itam mooy wérgowu diine maanaam wérgow waraayow diine naka noonu wérgow yaakaar woowu ñi nga xam ne ñooy chrétien yi te mooy wirgowu mbindare wu naataangeeg àll bi ak les tudde ak gëndaloo symbolise la couleur de l'islam l'espoir des chrétiens la nature et la fécondité mboq wi nag muy wiir ko mboq wi muy le jaune ci jamono di màndargaal ak texe muy bonheur aku xéew muy li ñuy wax l'abondance le jaune c'est la couleur de la savane du bonheur de l'abondance wiir xonq wi nag ñu ni mooy wiir déretu sunu maam yooyee ñu doon jotoo mu nekk njotoo goo xam ni ku ci nekk ci xeet wi da ko war di dund di ko bàyyi xel maanaam ñu bañ leen fàtte mu ni le rouge c'est la couleur du sang donc di du sacrifice consenti par toute la nation biddiw bi nag ñu wax ni mooy keeñeer gi leer gi leeral réew mi ci ubbeeku gi mu ubbeeku ci mboolem juróomi Kembari muy les cinq continents. L'étoile, c'est la lumière qui éclaire le pays en s'ouvrant sur les cinq continents. kon bokk na nag ci yarab lees di wax ma réew ci ni ñu waxee ni noonu lañ war a respecté maanaam ni lañ war a fonke raaya wi mooy suñu ko yëkkati maanaam suñu koy aj kenn wóoru la nekk di def dara ñëpp danoo war a dakkal ñu nekkoon loolu nag ngir firndeel fonk gu ñu war a fonk suñu réew waaye nag kon am na lu ñu seetlu ci sunu réew mi ndax lii ñu ko xam bëriwul te yenn saa daañ ci jàpp nit fitnaal ko ci te moo ne ñi leen ciy fitnaal defunu lépp la leen waroon ngir ñu xam ko ba noppi xamulu leen ni laaya wi buñ koy yëkkati lu waaye nekkoon da ko war a dakkal ba ñu aj ko ba noppi nga door a nekkaat ci leneen waaye dañ leen di bàyyi noonu ci réer gi bàyyi ko ci làkk woo xam ni ñi ko xam du mu lu may ñun néew ci doomi réew mi bindaloon leen ko ci seen làkki réew yi ba ñu mën ko xam waaye ci riir googee ñu réer umpule ko te mu sababoo ci ñoom ci ren leen di àtte yenn sa di leen fitnaal ci lu tax ñuy yëkkati raaya wi yow nga yëngutu ñëw jàpp yóbbu loolu nag kon day mel ni déggitul ci maandute ndax balaa maandute di am faw ñu xamal nit ki ba noppi li nga koy àttee maanaam nit balaa nga koy duma ci li koy tere da koy xamal ni ko lii dama koy tere waaye nga wax ko ko ci làkk wu mu dégg ba mu xam ni lii kat da koy tere su boobaa nag su ko defee nga xam ni kat kii moo tay li muy def waaye kët daan ni xale wala nga toog fi nga toog daan ni fii di damay tere ku fi dugg kenn déggu la nit dugg fa nga ñëw jàpp ko di dóor ni fii kat waxan naa ni kenn du fi dugg ñu ni la kañ nga ko waxan nga ni ba ma toogee ci sama néeg wala bind naa ko ci sama këyit wa fële te ka nga ko bindal xamu ca dara mënu ko sax a dawal dégg ko kon loolu dafa mel ni mbir am na loolu lu war a beqi la la ci toppat itam muy raaya daa am lu muy firi loo xam ne du jëmmi xob bi rek walla ñu ni morso yi rekk mooy mbir mi déedéet wérugo yi mu làmbool mu làmboo ay maanaa balaa nit ki xam gan gànjar la raaya wi am faw ñu xamal ko ni ko raaya kat wii moo yore wirgo wii wirgo wii lii la wirgo wii lii lay tekki wirgo wii lii lay tekki bu weesoo li si wax lépp bu ñu leeraloon ni ah wirgo wu xonq wi kat mooy lii melal sunu maam yooyu nga xam ne jëlal nañ leen daal di leen di faat rey leen ci rey gu tegewul fenn ñu war nag ngir respecté gun leen respecté fonk gun leen war a fonk ñu bañ leen a fàtte tax nañu def leen ci sunu wirgo wi ngir saa suñu yëkkatee raaye wi xel yépp dem ci ni nun kat waruñoo fàtte jàmbaar ya woon sunu maam ya woon ñi nga xam ne ñoo tax tey jii bu nu amee jàmm yàlla jaarale ko ci ñoom defal nu jàmm ndax ay jàmbaar lan yoo xam ne xare nan ba fa seen kàttan yam ñu tooñ leen lëmbaaji leen waaye taxu leen a bew taxu leen a xàddi taxu leen a deltu ginnaaw ñu xam leen itam ni wirga wu nëtëx wi muy verte bi ak wu mboq wi muy jaune bi mooy wane ñaari wirgo yi nga xam ne moo gën ràññeeku ci yéenum réew te mooy li ñuy tuddee ak nëtëx ak li ñuy tuddee ak mboq ndax bu nawet jëwee àll bi day wert naka noonu itam ci yennaate warab yi nga xam ne daa nekk warab yi naataange ni ki Casamance ak yenn ci warab yi nga xam ne moo nekk Sine ak yi mel ak lu mel ni ki yenn ci warab yi wetu dex yi waaye nag bu noor ñëwee àll bi day mboq nit nga xam ni moo gën a yaatu ci réew mi niki noonu itam la Sénégal làmboo geneen xamtukaay bu ñuy tuddee la devise fii ci senegal nag bu nu waxee baatu devise mooy ñett yi muy fere yi mooy fere yu di yenn tubaab di ko wax bu nu waxee nag fere yu muy yu di yenn mooy fere yoo xam ne dañuy nekk ay mbokk di benn ak lu diine yi wuute wuute lu xeet yi wuute wuute lu gëm-gëm yi wuute wuute lu xalaat yi wuute wuute du tere ñu bennoo te mooy bennoog ay fere ñaareel bi mooy bëgg-bëgg bu di benn ñu di ko tudde un but te mooy ñu bokk benn bëgg-bëgg ci aar sunum réew suqali ko ak def sunum réew muy réew mi gën def sunu doomi ëllëg ñuy doom yi gën loolu ñun ñëpp dañoo war a ànd bokk benn bëgg-bëgg boobu ak ndonte ku ci nekk am nga loo bëggal sa bopp waaye lii moom daa nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ caa war a ànd saa bu jotee yor ci genn kàddu yëkkateendoo dóorandoo beneen bi ca topp mooy benn gëm-gëm ñu di ko tuddee une fois benn gëm-gëm na boo ko déggee ñun ñëpp dañoo war a àndandoo gëm ne sunu mboolaay gi dañoo nekk ñu am solo gëm ni itam sunu mboolaay gi ku ci nekk da ngaa war a taxaw ci lépp lu leen di aar gëm itam ne sunu lii ñuy tuddee ay càmputeef muy institution ñun ñëpp ku ne da ngaa war a taxaw ci aar ko ak jox ko la mu yellool saa su waree ak jamono jam waree ak nam waree ci itam càmputeefi réew mi. bokk na ci lis ci tuddee poq bi ñu di ko tuddee le CO poq bi nag boo ko déggee mooy cachet bi nga xam ne moom la réew mi di cachet maanaam mooy li muy signé maanaam tampon bu réew mi mu nekk tampon bu làmboo ay biir bokk na ca muy genn gaynde ak ab biddiw ci kaw ci genn wàll gi ci geneen wàll gi muy ñaareelu pàcc bi ak guy naka noonu bindu réew mi te mooy ñetti waat yi yenn fere benn bëgg benn gëm-gëm muy un peuple gaynde gi nag am empire mooy gaynde mooy buuru àll bi loolu nag li muy wax mooy képp kuy doomu réew mi danga war a am ak njàmbaar naka noonu nekk ab bañkat nekk itam ku dëgër ba nekk am yaafus wala njàmbar lii nag bu nu ko xewoon nii sunu xale yi nii leen koy gëme ni ki nga xam ne noonu la ko doomi saa Amérique di gëme guy gi nag ñu ni moom mooy buuru jàtti bi maanaam mooy buuru àll bi maanaam roi de la brousse mooy màndargaal kàttan ak ak xere ndax guy nekk na garab goo xam ne maanaam cax ko boo xam ne goo xam ne mën naa samp wax na ni mën naa dund luy tolloog juróom benni junni at ci gudd fan nekk itam loo xam ne nërmil ko yombul nekk itam lu yàlla xaari ñu bindam nekk lu làmboo ay kéemaan waaye nii la ko sunu xale yi di jàngee ci tubaab waaye xamuñu ci dara la ca toppaat itam mooy biddiw bi di ñetti joxañ te mooy cinq branches muy juróomi wànqaas juróomi wànqaas nag bu ci nekk jublu benn ñu wax ne day wane ubbeeku gu réew mi ubbeeku ci jëflante ak mboolem juróom yi te muy Amérique Asie Europe ak Afrique ci boppam ak Océanie beneen ba dooleekuwaatoon ci càmpte fii muy lees di wax bàkkub réew mi muy lim national bàkkub réew mi nag boo ko déggee mooy ay kàddu yooyu mbuub yoo xam ni day melal wala muy màndargaal ak njàmbaar ak bañ aw fit gëm-gëm bu kawe ak yaakaar ju rëy pour tas yaakaar ki ko njëkk bind nag dañuy wax ni mooy Léopold Sédar Senghor ñu wax ni nag ki nga xam ni mu toggale mbuug mi mooy ku ñuy tuddee Hébert Pépère wax ni itam ki ko yëkkati mu ngi tudd Julen Ziga moom lii di bàkku réew mi nag ba léegi itam xale yi dañ koy woyantoo saa su ne ak suba gu jot lu ci bari ci yenn daari réew mi waaye ba léegi xamuguñ ci dara lu may jàpp nañ ni aw woy la rek wu neex wu ne woyantoo nii rek ngir amuk jot kon la ko waral mooy li nga xam ni moom la wax jii di tekki xamuñu ndax ay tubaab la maanaam wax ji waxi tubaab la te ñoom duñu ay tubaab ay nit ñu ñuul lañu ana lu tee ñu bindal leen ko ci seen làkk yi ñu dégg wax leen ko ñoom ñëpp ñu xamandoo ko xam ne lii kat jubluwaay bi lii la ñu xam ni kon mbir mi fii la leen toll ndax nun ñu seetlu ci yeneen réew yi bu ñuy yëkkati seen bàkku réew ñu gis ne dañuy jooy yenn saa loolu nag lu tax nun bu ñuy yëkkati sunu bàkku réew dunu sax a yëngal kon ñaar am na muy kon dafa mel ni làkk wi ñu ko làkk ump na nit ñi ba jàpp na ni taxaw di ko diglu sax ak jot la mbaa boog sunu amul pexe ñu wax ko itam wax yi ñu fi jëfandikoo njàmbaar gi mu làmbool ak solo si léeru leen xamuñu ko ndax dafa waroon a am xëy na luñ ko laytaayale wala luñ ci waroon a tudd loo xam ne dana xëcc seenu bàyyi xel waaye itam mu nekk lu dëppoo ak niñ leen di yare waaye suñ leen waxee ni leen yéen di jàmbaar ngeen ba noppi ñëwaat di leen jàngalaat yeneen xam-xam di leen wax naa leen nekku leen mbaa amu leen mbaa ñu jël tubaab yooyu di leen tàggaat ci seen kanam su boobaa ñoom dañuy jàpp ni lii ay nax la kon yooyu itam nekk yées war a bàyyiwaat ci suñu yarub réew mi ndax dañuy wax sax ni am na ci benn ci yar maanaam ci bàkku bi yenn ci réew yi ki nga xam ni moo ko bind ba mu koy bind ma nga ca kaso ba deretam la doon jël di ko binde bàkk ba ba mu ko bindee nag ba noppi de la mu doon binde deretam jooju ca leen jël maanaam moom la ñu jël def ko seen bàkku réew ba gis nañ ni ñooñu suñuy amal seen bàkku réew dañuy gis ni dañuy jooy ndax la muy wax dañu koo xam mu nekk seenu làkk la ca toppaat itam wax ja nekk lu jeexital ñoom ndax mboorum wax ja maanaam l'histoire ba li nga xam ne mooy bàkku réewu Sénégal ñu ngi ko tënk ci yi loy mooy pincez tout fokora frappez les plafonds le lion rouge a rugi le dompteur de la brousse d'un bond s'est élangé dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vers épaule contre épaule. Mais plus que frères, au Sénégal debout, unissons la mer et les sources, unissons les steppes, unissons la steppe et la forêt, sali Afrique, mer. kon lii mooy bàkk di kon dog bi njëkk ci bàkk bi bu nu la ko doon tekkil nag ci wolof lii dong la wax ji mooy tëgg leen seeni kora dóor leen ci foode gi muy les plafonds gaynde gu xonq gi mer na moom mi jatkatu àll bi ci tëb gu sori ci lay deñale bépp lëndëm lëndëm jant bi tiim suñuy tiitaange jant bi tiim sunu yaakaar mbokk yi yéen ñëpp nee leen jonn Afrique ngi ñu daal benn sama ñàppantaani xol yu nëtëx yi mooy mbagg ci kaw mbagg waaye na gën yaatu na gën a bari mbokk yi yéen waa Sénégal nanu jonn maanaam nanu ni jonn nañu boole géej yi ak balluwaay nañu boole tepp teppi ndox yi ak gott yi ñaanal lan jàmm te nuyu kuy képp kuy doomu Afrique mi ndeyu nite kon lii de mooy bàkk bi defe naa sunu ko waxoon ci sunu làkk yi maanaam yi dana gën a yaatu te dana gën a leer waaye nag làkk français wi ñu koy wax xëy na daa mu ump sunu doom yi ba daanaka buñ koy wax du leen yëngal kon